Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu on est derrière les caméras. ii ah loolu est-ce que du ko gérer ak Khalil est-ce que du ko gérer ak Khalil. Ah, waaw euh, du ko gérer ak Khalil. Mhm. maa ngi leen di fay bu baax a baax aussi di leen jaajëfal di leen wax euh, bon gàmmu à vous et puis taalibi Serigne Babacar Sy Malick ah noonu la suñu kër ay taalibi Cheikh lañu sama rak Xalifa Babacar la tudd Ah, en tout cas, ça se passe bien. Ça me fait vraiment euh, du bien d'être Il fallait que je sois là parce que depuis ma donne Paris bataille, euh, je me donne raté gamme, je me donne mettre trop. Donc euh, cette année, moi, je suis vraiment très heureuse d'être là. Euh, on a des liens familiaux du côté de ma a Voilà, donc mon année, c'est mon là. Oui. Exactement. Donc la femme, nous un peu de c'est ça, oui. nañ nga gis ay mhm. euh, alors ça m'a vraiment rendu triste et d'ailleurs je présente euh, mes condoléances aux familles éplorées aux familles euh, éprouvées di leen ñaanal qu'Allah leur facilite à surmonter cette épreuve inchallah et aussi euh, voilà franchement je sais vraiment pas à quoi dire parce que ça m'a vraiment fait du mal ça m'a vraiment rendu triste ak qui puissent en fait euh, penser à en arriver là ba ñu ñàkk ci seen bakkan mais xam naa ni bëgg tekki bëgg bëgg bëgg loo xamante ne nii peut-être lu ñuy teralee seen ay waajur ak yooyu noonu moo leen ci dugal et je pense que voilà l'immigration clandestine ne devrait pas euh, être euh, le seul moyen en fait pour s'en sortir je pense que il devrait y avoir une économie plus inclusive par rapport aux jeunes nga xamante ne ni dinañ mën a tekki fii ci dëkk bi évoluer fii liggéey fii ba nga xamante ni dinañ mën a demal seen bopp sans pour autant que ñu ñuy euh, passer par l'immigration clandestine c'est ce que je dirais. ba ngay ñëw ànd nga garde corps déjà gis nga non non ànduma garde corps nag dire vrai samay xarit laa àndal. mais déjà lan c'est dommage hein, parce que voilà le pays n'était pas comme ça di juste ñu gën a prudent aussi di gën a def attention par rapport ak heure yi nga xamante ne moom la ñuy génn et euh, j'ai vu que la police a été déployée euh, depuis pas mal de temps pour veiller à ça pour euh, contrer en fait les agressions et tout ça et puis euh, c'est vraiment très très bien c'est ce que je dirais merci mu ngi ne derrière les caméras. ii ah loolu est-ce que du ko gérer ak Khalil est-ce que du ko gérer ak Khalil. maa ngi leen di fay bu baax a baax aussi di leen jaajëfal di leen wax bon gàmmu à vous et taalibi Serigne Babacar Sy Malick <laughs> ah noonu la suñu kër ay taalibi Cheikh lañu sama rak Khalifa Babacar la tudd <laughs> ah en tout cas ça se passe bien ça me fait vraiment euh, du bien d'être là il fallait que je sois là parce que depuis ma doon dem Paris ba tey euh, dama doon raté gàmmu daf ma doon métti trop donc euh, cette année moom moom je suis vraiment très heureuse d'être là euh, on a des liens familiaux du côté de ma mère voilà donc mun naa ne sama nijaay la oui. ok loolu moo waral tey exactement. donc Faaw mi ngi dund euh, mbégte mi ça oui. la laaj tamit euh, mën nañ ne ci actualité bi nga xam ne mën naa ne euh, réew mhm. di seen bakkan ci doon mbokk mi alors ça m'a vraiment rendu triste et d'ailleurs je présente mes condoléances aux familles en fait éplorées aux familles euh, éprouvées di leen ñaanal qu'Allah leur facilite à surmonter cette épreuve incha allah et aussi. voilà, franchement, je sais vraiment pas quoi dire parce que ça m'a vraiment fait, euh, fait, fait, ça m'a vraiment fait du mal, ça m'a vraiment rendu triste que qu'ils en fait euh, penser à en arriver là ba ñu ñàkk ci seen bakkan mais xam naa ne bëgg tekki bëgg bëgg bëgg loo xamante ne nii peut-être lu ñuy teralee seen ay waajur ak yooyu noonu moo leen ci dugal et je pense que voilà l'immigration clandestine ne devrait pas euh, être euh, le seul moyen en fait pour s'en sortir je pense que il devrait y avoir une euh, plus inclusive par rapport aux jeunes nga xamante ne nii dinañ mën a tekki fii ci dëkk bi évoluer fii liggéey fii ba nga xamante ni dinañ mën a demal seen bopp sans pour autant que ñu ñuy euh, passer par l'immigration clandestine c'est ce que je dirais. ba ngay ñëw ànd garde corps na ci dëkk dire vrai samay xarit laa àndal. mais déjà lan c'est dommage hein, parce que voilà le pays n'était pas comme ça di wax nit juste ñu gën a prudent aussi di gën a def attention par rapport ak heure yi nga xamante ne moom la ñuy génn et euh, j'ai vu que la police a été déployée euh, depuis pas mal de temps pour veiller à ça pour euh, contrer en fait les agressions et tout ça et puis euh, c'est vraiment très très bien c'est que je dirais merci à vous merci beaucoup merci au revoir jàmbale yi.

ama jagana sa kër maam mi ngi jowali sa kër maam mi ngi kaye ji sa kër maam ngi fuuta dem seela sa yaay mën la utal baay bu baax mu El Hadj Moussa Diagana mais bu mu utalee baay bu baax su la amee géew day ne côté ndey nañu pousse côté baay nañu ñëw ma yor sama jëmbe ak sama tuntu ak sama koraay sama xalam yi loo leen tëgg sa kër ëtt kër baay man maa ko ma yàlla fekk na ma nga dem mais kenn ku ne sa génn njëkk yow yow du ñu gisante fukki at du ñu gisante ñaar ñaar ñaari weer mais benn fan suñu gisante ñu mu réglé cas nit ki loolu moom soo ko bàyyee keneen moo koy jël bisu jafe. fekk na ma nga dem fekk na tàggu bu la neexee ma TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te woo